chers internautes de la de Vision ravi de vous retrouver comme je vous je su très contentement plaisir de vous présenter cette émission bi ngeen de vous présenter. bi ma su vous sama xarit mang lay nuyu. lay fay aussi de vous Vision di wax ne rek euh, yéen ngi ci sen émission euh, jotaay bi di wax kam euh, sa su ne rek mën ngeen ñu suivre ci suñu différentes plateformes de Vision ci YouTube bi Facebook bi ngeen xam li nga xamante mom lañuy def fii nii di leen juste pour di leen bégal di leen andil le meilleur de l'information tay nak ñu dal di ñew maxu ci li nga xamante moy cas de meurtre yi successifs yi am ci réew mi rek bi tang na trop dernièrement

si ndax euh, meurtre yoo xamante ni daanuñ ko fi dégg xamuñ ko fi woon moom la ñuy gis actuellement ci suñu dëkk bi. danaa jékki autant dégg ne am na ku décédé li ma ko rey mais léegi nii nit boobu moo nit comprendre nga ci ay affaire yu tuuti yoo xamante ne dara ko daal ay ay ay xeex wala ay wax yoo yu ndaw ñu fexe ba xeex reyante ci. loolu aussi euh, war nañ ko xool taxaw seetlu xam ne lii aussi du yoon ñu jéem a xool suñu bopp quoi.

soxol tàng gaaw mer lépp mën na mën cause bi. Mhm. moo tax léegi nii euh, ñaan ku nekk rek foo noo def am ko jël paaka. Mhm. loo xam ne autant kenn du ko comme comme ku ku di nga yor di nit mhm. dem ko tim ko ba mu ci zéro. aussi euh, euh, le fait que euh, armes accessible à tout le monde. foo duggee ci boutique bi mën fa jënd paaka wala ñii di jaay paaka yi ci mbedd yi armes yi et tout ce que jotul aussi ñu xoolaat loolu noonu est-ce que waruñ ko régulariser wala ku mu neex tey rek nga jënd sa ngànnaay teg sa oto boo amee bu la boo dajeek maxu tey jii mu def la naka su dul noonu rek sa xol jóg nga dugg sa oto daal di ko ci jàmm gaañ du yoon du yoon parce que bu ñu yoon léegi ba jaay ay ay paaka ci mbedd bi arme blanche du yoon moo tax léegi ku nekk am nga Sesak, sak, saak am nga si paaka sa saak buñ ne ñoo xam nga génne paaka bi di xeex ñu atte nga jam te léegi problème mooy dañ lay jam yow nga faatu mo mu doon police te dafa mois génnaat nekk à l'aise sa kër ñàkk vraiment mu nekk loo xamante ne vraiment euh, ñaaw na trop ci dëkk boo xamante ne nee nañ mooy dëkku teraanga ñu gis ne tolérance amatul baalanteetu dëkku teraanga Sénégal moo tax ndax dëkku jàmm la dëkku diine dëkku islam boo xamante ne ku nekk bëgg nga am am nga rêve ñëw Sénégal fii xam li fi xew mais imagine tey ngay dégg nga toog beneen dëkk dëkk Sénégal chaque jour am na meurtre doo bëgg ñëw fii de dañuy yàq réew mi. mu nekk loo xam mu ngi yàq suñu suñu tourisme bi. Mm-hmm. parce que nit dañuy ragalkat boo demee vacances xëy na euh, yaa ngi boo bëggee génn sax yaa ngi naan est-ce que duñ ma agressé walla loolu te agression yu yu simple sa téléphone rek mën nañ cee faat sa bakkan. tout récemment am na ku ñu rey fii côté université je pense benn benn booy bu tudd yaakaar naa Célestin guddi la fa dox bu ngay gan ñu si gars yi agressé ko te problème dem ko ba mu dee ci loolu rek portable rek mu jam ko noonu ci xale bu nekk université jàng léegi yàq na jàngam ay famille am aussi cause yi tamit maxu ñu taxaw ci li nga xamante ne moom mooy ñàkk bi le fait dëkk bi jeunesse bi ñu amuñu liggéey ñàkk nañu ba dañuy dem ba toutes les moyens sont bons rek. Mhm. pour euh, pour am as bo xamantene xamante nga ci nan ataya wala mën nga ci def yenn le fait que le manque d'emploi yoy non noonu. waaw tam mën na nekk parce que légui comme dëkk bi amul liggéey les gens dañuy wax que ni tous les moyens sont bons pour am xaalis mu joxal ngay agresser di rey doomu jàmbur ci mbedd bi tamit du yoon du yoon bo xol ne ba nga sa kër mag mhm. rakk ndey ak bay doo ko def mhm. parce que ngay rey am na ndey ak bay yaakar la aussi nga rey ko non ci zéro. tamit du yoon ak loo ñàkk ñàkk bu tax nga ñànki quoi na nga toog xaar xam ne un jour day ñëw mais day neex mais bul bàyyi jàppaat sa métier boo liggéey yàlla dala wuy si c' est ça la vie mais bu bu tax nga nga nga nga ñànki ba tax nga bëgg dugg ci loo xamante ne yaa ngi loolu sa bopp loolu doomu aadama yi c' pas normal parce que temps yi moom kaa yi moom dafa bëri loolu macha allah bëri na trop de bu ñu xoolee tamit ci euh, le fait que tey jii euh, fit tamit fit bi mhm. nit ñi andal fim tollu ni récemment ñu ngi gis xalé bu jigéen boobu poignardé son euh, exam wa doy na lolu mo fa fa fa fa nga wax ci mom lolu mo kala benen kala mm. benen kala genn nga nit ki mm-hmm. déjà mom bayina la mm-hmm. mi ngi marié kenen hein ngeen du am fi du fi am fekk ci keum dégg na ay 22 vingt heures ci keum di pare pour sumee pour teud mm. mu fekk fa ginaaw ne ko ce ce bis bi do ko par simple de rek parce que est-ce que wor c'est c'est vrai il faut est-ce que wor la wala d'après les dires. Hmm. nañu. donc mu dem ah vraiment. ah vraiment je me dis que jarul nga nga sa adina en tout cas hmm. c'est trop. comme hmm. c'est trop ci dëkku teranga bu ñëw moy Sénégal dëkku diine mhm. waaw aussi nga nekk sénégalais même bo nekkul sa nekkul fi yaa ngi Europe mo mhm. nga ci bay xel né yow sénégalais nga li nekkul sa sa xaw sa sa dëkk li bëggul bëggul li xam du du voilà merci beaucoup mhm. comprendre nga tout récemment kan mo ray ak fi je pense que mooy euh, Pala fay waaw xam aussi lu ma ko soxnam ba tax mo ray ñet doomam ak mom aussi muy carte

issue sans retour donc mënatul won xeyna delu gannaaw ci li nga xamantene euh, ci ci souffrance yoy la nekkoon mais quoi qu'on puisse dire rek yi ils n'ont pas demandé à naître dans cette ménage donc mënon nañ leen a épargner euh, tout ce qui s'est passé vraiment mm-hmm. ak yaay ji aussi ñu ñukoy koy bu baax a mm-hmm. na trop rek ñuy ñuy ñu gissat benen cas tay la am

mais ku jigéen ki jot nañ voilà jot naa xibaar sànq nekk mujj na tamit succombé à ses blessures mujj na décédé donc waa ñoom ñaar ñëpp oh, oh, oh. mujj nañu mujj nañ décédé vraiment mu nekk lu métti trop loo xamante ne xamuñu ko woon ci mim réew mm-hmm. donte euh, kooku nekku fi mais doomu réew mi la fii la juddoo fii la màggee ba noonu muy demee donc nekk na ay réalité yoo xamante ne baaxoowuñ ko gis fii suñu réew mais mu nekk loo xamante ne mu ngi fréquent trop

kun sa doof doo lu bon mais bo nekkee ni ko xamante kan top kenn toppatoowu la kenn faalewu la boo gën a ci mbedd bi loolu neex ngay def loolu neex ngay def neex ngay def kon nañu xolaat yar yu bu baax xol éducation de base bi ñuy jox suñuy doom éducation de base bi nga xamante ne moom mooy yar nit mhm. bu gisul yaay jeeg pàpp ji ko ko defal fu maintenir mënti nekk loolu da koy topp da koy éducation de base c'est très très important mais moi, est-ce que tey dit jotul jotul nit ñi di waxtaan est-ce que jotul nit ñi di am de vrai mais de vrai confident yo xamantene bo amé amee lu la metti wóolu nga un maxu nga dem wax ak mom xëy na maxu dina la mëna dalal apaiser la yow ba xëy yow feulé yi ngay def yeb do ci do ci mëna do ci mëna ag lolu yakarna est-ce que am na Sénégal amu fi de nga problème ni waxoo nit yi mu japp si nii non baro fi baro fi baro fi dina am quand même mais du bari té fo nga aussi nit nga am ko xamantene mo mooy confident ba amee soxla. taxaw wax ak moom ne ko lii ak lii moom métti mu conseil la nga teg ay pas comme li mu wax mais boo toppee sa xel rek di nga dugg si ay erreur mooy ni yëpp nii mooy ni kaay nii parce que amoo ku lay conseil amoo amoo koo waxal sa xel ngay ngay demee day am problème da ngay am problème mais tey ji bu ñu demee tamit ba wóoloonteetuñu suñu biir am na ñoo xamante ne c'est leur spécialité ñoom ay spécialiste lañu ci walu boobu muy les psychologues mhm. lolu rek lañu jang lolu motax ñu fi donc pour pour dimbali askan est-ce que jottul tammi ñuy wax ak non non. <laughs> Sénégalais amul temps bobu amul temps lolu lolu yuftu bab la. day bëgg tok diko diko souffrir en en en en en silence. Mm. ba xey rek un jour xey rek solution bi rek lu quoi.

Euh, di nga di nga di nga mën a éviter lu bëri ci sa àdduna xëy na erreur yu bëri doo ci dugg. Mhm. mu nekk euh, maxu lu lu metti métti tiis yoo xamante ne dal nañu ci ci suñu réew mi. Mhm. ci nag temps bu yàggul dara. san mhm. dese yu bëri na moom loolu chaque jour saa boo yeewu nga dégg dese saa boo yeewu dégg ay cas yoo xamante ne xam nga fu mu jugee te ñu koy def aussi ay xale dong koy def doy na waar. doy na waar trop métti na métti na lool mu nekk rek maxu lii lañu andi won tay rek euh, ci suñuy 15 euh, minutes jotay bi don euh, waxtaan ak yéen rek j'espère que liñu wax rek mu nek lu bax ci yalla la mu nek lu safaan xëy ci suñu matadi kese la dañu taxaw rek juste pour des apports apporter ay quelques éclaircissements wala suñu opinion ci les faits yi nga xamantene ne ñu ngi xew ci réew mi maxu aussi ñu jox gaay rendez-vous hein benen numéro jotay bi di wax que ne ñu def attention bu baax wax te aussi xam que ni doomu aadama dina def lu baax. voilà ànd ak sa xel aussi xam na li ngay def euh, li ma yoroon nga def ko quoi bu tëb def loo xamante ne baaxul quoi. comprendre que ñu ngi Sénégal dëkku jàmm la dëkku dina nañ moytu fitna gi ñu nekkee chaque jour boo xëyee léegi dese nañ ko bàyyi. yàlla mooy rey mais nañu di moytu xam ne kat li ñu nekkee dëgg du yoon ñu bàyyi rey bi aussi bu fekkee aussi jar na ko ñu def ku rey ñu rey la. appliqué kii bi charia bi hmm? xëy na bu ñu fa àggoon tey jii. dina wàññi dina lu hmm. bari parce que kam quoi qu'on puisse kër bëggul dee. <laughs> ku jam nu jam la léegi mu jeex. ñu dàgg sa ah, mu jeex. comme on su yaakaar naa bu ñu fa àggee lu bari dina wàññeeku mais. Euh, comme on dit nag nekkuñu ci dans un état islamique xéna lu bari duñ ko mëna def mais nañu revoir rek nañu revoir sanctions yi bu baax baax su ko défé ku ci nekk rek di nga mëna xam bu baax li ngay def tay moytu euh ñu nekkoon li lañ leen andiloon tay ci sen émission jotaay ji doon wax ci euh, cas de meurtre successifs yi nga xamante ne am ci réew mi ñu leen di ziar bu baax baax ci téwlu bi ngeen ñuy téwlu sa su nekk di wax né rek euh, c'était un plaisir de de vous servir man ak sama frère Makhou donc on vous donne rendez-vous très prochainement ci une bonne émission de bi